alhamdulillah. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi nga xam ne yéenay seetaan Infos 15 TV yëpp ñu ngi ñëw ci suñu émission bi ñu tuddee tarbiyatu wa taalim nañu di waxtaan ak yéen ci. suñu tem bu rëy boobu ñu tudde feeñal cofeel ci sa boroom subhanahu wa su ko defee waxoon naa la ne <clears throat> malaaka yi sax bokk nañ ci ñi nga xam ni yàlla def leen a bind ngir nit yonent bi sallallahu alayhi wa dafa génn benn bis ci benn mbooloo ci ay saabaam fekk leen ñu dajaloo toog mën leen lu tax ngeen toog ñu ne ko toog nañu pour lan pour ñu tudd yàlla ñu sant ko alama xadaana lil islam comme ni nga ñu ko ni nga ñu ko digalee ni nga ñu ci jubalee ci lislaam wa man bihi alayna wa mun na bihi alayna yàlla may nañu lii yow nag ya ci sa loxo la jaaree allahuma ajlasakum illa zalika mu ne ko yàlla toogloowu leen fii daal lu dul loolu xaalu wallahi ma jalasna illa zalika ñu de tooguñu lu dul tudd yàlla mu leen amma inni laqad astalifukum tuhmatan lakum walakinahu ataani jibril fa axbarani anna allaha yubahi bikumul malaika mu ne ko man de demal leen doon tuumaal sax giñ naa ni maa ngi yaakaaroon ne leneen leen fi tax a toog waaye Jibril moo ñëw xabaar ma ne yàlla mu ngi yónnee ay malaaka yoo xam ne dañu kontaan ci yéen di leen bégal di leen bind ay tuyaaba ca la góor ga sukkandiku ni malaaikatu rahmaani laa ziltum min al kurama bi bi jamxikum tuubee li man xadaru géew yooyu nag ñoo waral tey géewu wasifa ñoo waral tey géewu xadara ñoo waral tey gé ñoo jur tey géewu daayira géewu dawaayir yëpp loolu moo ko waral moo xam ci bi ay tariqatin géewu sikri yëpp mu ñoo ko waral moo xam ci bépp tariqa su ko defee nag euh, wansur ilayhi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yuhaddisu asxaabu xool bi ni waxtaaneek ay saabaam say saar yore wàcce boppam yi woyefal boppam suufeel boppam ñëw waxtaan ak ñoom inna allaha yu baaxi bi ahli xarafaat yàlla di bég ci waa arafa ahlu sama waa asamaan yépp di bég ci ñoom mooy malaaka yi ak li yàlla bind yépp ñuy bég ci jaamu yàlla yooyu kontaan kon yàlla dafa bind lépp ngir doomu aadama su ko defee kon wax naa la ni euh, géew yu tedd yooyu moo waral géew yu tedd yi leen remplacer tey moo waral yow mi nga xam ni yàlla def la dimbaliwul ba ngay kontu ci nekk ci tarixa ci boo xamoon li nekk ci tey boo xamoon li nekk ci njariñ ci géew yu mag yooyu xoolal mbokk ya toog di jàng seen taysiiru maam nga di leen saboote lan lañuy wax alhamdulillahi si taysiri yallaahu nasma daraari lahu yallaahu yallaahu kan lañuy tudd yàlla yàlla man yàlla mi yombal lépp yàlla mi nga xam ni moo nose àdduna nose alaaxira yàlla mi nga xam ni moo la bind andi la fii soxlawul ci yow dara lu dul séddale boppam pour nga yëg ko jaamu ko yàlla moom nga xam ni bi mu la fi indi boole na la ak lumière bu mag bi nga xam ni mooy dynamo bi lumière yëpp branché wu boobu mooy kan mooy Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu boole laak moom nga am yaqiin bu wóor nga am yaqiinan annahu huwa yàlla mii mooy yonent bi laa tanfahu taatun yonent bi mooy yàlla mii laa tanfahu taatun illa bi ixlaasin wa imaanin ja topp gi nga koy topp du la jariñ lu dul nga sellal ko te teg ko ci gëm yàlla ak cofeel imaanin wa hubbin cofeel gu dëggu sax nag moo tax mu ni ñiy jaamu yàlla jamono bu ñu jotee cofeel yëg cofeel ci jaamu gi rek yëg mbëggeel ci jaamu gi yëg kontante ci jaamu gi rek mu ni su boobaa yëg si nañ su boobaa wala tadro masiyatun su boobaa nag yàlla ne ñooñu bu doon ay benn benn lañu day dañuy dañu may neex ba nee na moyuk ñuy lor duma mën a wàññi dara duma ko sax yëgal sama bopp nag ndaxte nee na benn jaam bu yëg si rek eh, eh, da mën a remplacer téeméeri jaam yu tardé yoo xam ni dañuy mooy a tax yàlla bëgg ku yëgg te bala nga mën a yëgg nag fokk nga am cofeel ci yàlla fokk nga sa boroom bala nga mën a yegg fokk nga bàyyi xel yàlla subhanahu wa taala fokk am cofeel ci moom fokk nga nekk nit koo xam ni dinga feeñal sa cofeel ci moom di booy ree yàlla tax sooy jooy yàlla tax ndax kii ree di yàlla di tax kii jooy yàlla di tax mooy la koy reeloo jaamu yàlla kese la du ci am bàkkaar yàlla ne ma bëgg ñett salaasatun yuhibbuhum allah ñett a ngi yenent bi ko nettali yenent bi nee na yàlla dafa bëgg ñett waaw wa yadxaku ilayhim moom mu di leen reyal boppam wa yastabziru bihim mu di leen bégal allazi istakasafat fi'atun xaatilin waraaha bi nafsihi llah azza wa jalla fa imma an yuqtala wa imma an yanzurahu ki nga xamante ni jamono bu taxawee ci xare nee léppom lay jox yàlla yamale ñu rey ko wala mu am ndam bu amee ndam day xam ni yàlla bu ñu ko reyee day xam ni yàlla yàlla doy na ko fépp allahu yegg fii yàlla doy na ko yàlla ni yonent bi ni xool leen jaam bi nga xam ni ko defee mu ni yàlla mooy wax foofu ni xool leen sama jaam bi nga xam ni doyloo na ma ci lépp ni ka la muñee ci boppam wallazi lahu imraatun asana wa la layyina hasanatun fa yaqumu min al-layl fa yaqulu yadiru sahwatu wa yaskuru nii ki nga xamante ni yàlla may na ko jongoma ju rafet mel na mu war a mel nangu nooy nepp baax ci moom laabe ci moom xaaju guddi jot mu wocc jongoma ca lal ba jóg sangu sol yéreem di tudd yàlla ba bët set yàlla ne ah kii nag sama jaam la ct të xoolal ñaar ñi ñëpp kenn ku ci nekk def nga effort ak ki nga xamante ne dafa nekk ci tukki nee na war-waru kaayam waaye terewul fu njël jotee <coughs> nee na fu mu fu ko fu ko jant sooyee mu fanaan fu njël jotee mu jóg boole kook muñ metit ya ak jafe-jafe ya ngir lan wut lu mu dundale njabootam yàlla ne kooku dama kontaan ci moom maanaam ki nekk ci tukki jóg wuti ngir famem jóg wuti ngir njabootam yàlla ne kooku dama bég ci moom dama kontaan ci moom ñu ngi leen di nuyu di leen balaax di nuyu waa Infos 15 TV yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah You.